Ah, tey dañ fi ñëwoon pour euh, dans le cadre benn atelier national bi nga xam ne réseau Siggil Jigéen daf ko organiser nekk une organisation de la société civile bi nga xam ne day liggéey ak ministère de la femme di liggéey avec ak jeunes yi ñun dañ fi ñëwoon en tant que ministère de la femme direction de l'équité égalité genre maanaam direction bi nga xam ni moom moo yore politique gu état du Sénégal si wàllu ak ak yelleefu jigéen àq ak yelleefu jigéen ak góor ak ak ak yelleefu jigéen surtout li nga xam ne moom moo koy jëmale kanam donc euh, si biir waxtaan bi euh, ya euh, jot nañ fi rappeler engagement yi nga xam ne état du Sénégal jël na ko ci wàllu àq ak yelleefu jigéen ci wàllu àq ak yelleefu xale rawatina xale bu jigéen rappeler rappeler nañu également disposition juridique yi loi yi nga xam ne suñu dëkk jël na ko pour xool nu muy jëmale kanam jigéen rawatina li ñuy wax loi sur la parité loi bi nga xamante ni mooy tax jigéen ñi jot seen bopp ci wàllu koom-koom jot seen bopp ci wàllu bërëbu dogalukaay yi li ñuy wax instance de décision te loi boobu sax dafa nekk en phase ak thématique le thème prioritaire de cet année maanaam thématique Euh, commission de la condition de la femme mooy commission bi nga xam ne moom mooy tënk di saytu lépp luy àq ak yelleefu jigéen ci àdduna bi yëpp ci biir mbootaayu xeetu réew yi donc commission de la condition de la femme ñu ngi def ay session ren ji commencé nañu depuis le 15 mars day dem ba le 26 mars pour xool àq ak jillee jigéen àq ak yelleefu jigéen rawatina àq ak yelleefu xale ak mag fan la toll maanaam ñu xool fan la toll xool yan jéego moo si am maanaam li tubaab di wax avancé yi xool yan obstacle lan moo tax jigéen ak xale mënuñu jëm kanam ak yan recommandation ak yan perspective lañ si mën a def looloo tax ñu ni thème thème forum égalité bi sax booy xool dafa xaw a laal thématique gu euh, CSW bi nga xam ne ubbi na depuis le 15 mars et que direction de l'équité égalité genre actuellement ñun ñooy coordonner la politique de l'État du Sénégal pour xool nan la ñuy defee après un rapport boo xam ni dañ ko partager avec les parties prenantes donc juste réitérer notre engagement ñu wane ni État du Sénégal mi ngi si wetu organisation société civile yi pour di xool lan mooy jëmale kanam liggéeyu xale yi liggéeyu ndaw yi liggéeyu mag yi ak liggéeyu jigéen ñi rawatina donc loolu rek moo doon suñu teewaay tey euh, ñu ngi xaar ci résultat acti atelier yi atelier bi tey la ak suba ñi ngi xaar résultat atelier bi di xaar rapport bi pour mun a rendre compte à l'autorité maanaam ndaw bi nga xam ne moo ñu fi ni